Aïcha eh, Diakhaté dafa doy waar. Ah, ah, en tout cas <laughs> ah, naa la rubrique bi tey bàyyi la rubrique bi tey. non dafa mel dafa nu mu béy fii ci mim <laughs> mhm. at bii daal moom waaw ñu ko fi def yëpp incha allah si kàttanu yàlla bu baax dinañ dinañ leen tudd donc euh, <laughs> ñu bàyyi la nga daal di koy yaatal fin d'année bi certainement incha allah buy def ci wàllu loolu ñuy wax euh, à la fin de l'année rétro rétro moom hmm. non dina neex. moo tax nag dañ lay bàyyi rek yaatal. waaw xam nga prétexte bi déjà mooy saisi yu bëri yi nga xamante ne dañ ko nemmeeku jamono ji excuse-moi balaa ngaa commencé xam nga couleur bi nga sol nu mu tudd. déedéet bi man man gris laa ko tegoon. moom tey daa mel ni oh, dama ay sa daf maa jaaxal. gris bu garaaw la ragal du ko sol. Ah, ban façon gris la. lii mooy gris kaña. gris eh, kaña waaw gris souris. Mm. rek leel yow <laughs> ah je dormirai moins bête ce soir. mën nga dem mën naa dem <laughs> daf may namm mën nga dem. waaw loolu loolu moom am nga xam nga xëy jàkkaarloog jekk muraay bi moom xéewal xéewal la. maa ngi jégalu ci allah mais mais bu ko topp nag ay ci ñu dem ci donc euh, prétexte bi mooy. xam na ne sama mag nga. waaw kañ ma ngoog. Aïcha bi. Aïcha <laughs> Pape Ndiaye. waaw boo ko deful de tey du ma bàyyi ma développé ah. <laughs> waaw xam nga jamono ji phobie yi saisie yi dafa bari. Mhm. li ñuy jàpp ay phobie dafa bari. ñi nekk ci kaso yi également ñu leen di jëñ wàllum phobie dafa bari mais dangeen di seetlu euh, néew na rarement ngeen di dégg malgré saisies yu bari rarement ngeen di dégg ku ñu condamné pour mbirum phobie. loolu li muy tekki mooy la plupart des dossiers yi nga xam ne day ñëw tribunal dañuy leen libéré ñi fa nekk annulé procédure yi. Mhm. loolu nag am na lu ko waral. bu ngeen xoolee dans le passé bëri na ay célébrités yoo xamante ni doon nañ leen fi tudd ci wàllum faux mais à fin mbir yi du mujj fenn. Euh, jurisprudence Thione Seck mi ngi fi mënuñ koo ñàkk tudd gis ngeen ak coow li ngeen ci doon dégg yëpp mujjul fen au contraire dañ ko mujjee setal Ngaaka Blindé également ñu ngi ko doon dégg ci wàllum faux billets mujjul fen euh, Mame Ngor Diazaka waaw voilà ñu ngi ko doon wax wàllum faux billets mujjul fenn. parmi tant d'autres célébrités yoo xamante ne à chaque fois. dañ leen di ah te doon na waaw mais après bi ñu ko attee dañ ko setal dinaa ñëw ci ci ci kaawam. Mm. léegi nag loolu nag du du dafa am lu ko waral. man dama jàpp ne suñu enquêteurs yi Sénégal. jot na sérieusement ñu former leen ci yenn mbir yi nga xamante ne dama jàpp ne xarañte bi ci wàllum enquête Sénégal. ci wàllu yooyu dafa des. faux mm-hmm. ci la bokk. blanchiment d'argent ci la bokk. wàllum évasion ci la bokk wàllum association de malfaiteurs ci la bokk maanaam ay mbir la yoo xamante ne ku jug ñu jiiñ la ko te saa yu ñëwee tribunal tribunal annulé procédure wala ñu seetal ki ñu doon jiiñ loolu donc bu dee bu ñu desee ci wàllum phobie bi da ngay jël jurisprudence kaawu Thione Seck dañu ne jàmm nañ ko jàpp nañ ko nangami milliards phobie ba ñu demee tijji sele yi sele yi mooy bu ñu la jàppee ak ay phobie ay drogue loi bi dafa ne dañuy jël ay échantillons yoo xam ne dañ koy indi tribunal mais échantillon yi nga xamante ni indi woon nañ ko ci tribunal ci kaw san bañ ko tijjee xam nga lu ñu fa fekk ay mouchoir yu vert ay kayit yu ñu kuppati ba mu jël formu dix mille ak ay vrai billet lañ fekkoon ci sélection sec ay mouchoir yu verte feuille bu ñu kuppati ba mu jël forme dix mille ak ay vrai billet euro ak CFA ak dollar bi loolu amee ba ñu njëkkee àtte dossier bi tribunal daf ko setal maanaam dañu annulé woon procédure bi pour vice de forme ba ñu demee cour d' appel cour d' appel annulé jugement boobu joxe beneen jugement ba ñu demee cour suprême cour suprême setal ko muy benn. nga jël dossier Ngaaka Blindé ba ñu ñëwee tribunal dafa def lu ñu tuddee renvoi de la fin de la poursuite parce que ñu bëri sax ñi ngi naan relax mais du relax renvoi de la des de la poursuite loolu am na lu muy tekki parce que relax mooy. dafa am ñaari relax dafa am relax au bénéfice du doute ak relax na xamuñu yaa def xamuñu defoo mais amuñu preuve buy wane yaa def donc dañ lay lay bàyyi loolu mooy relax au bénéfice du doute relax simple nag mooy délit bi ñu lay toppee am na mais du yow mii ñu fi indi yaa ko def mm-hmm. donc dañ lay seetal renvoi des fin de la pour site nag mooy délit bi ñu lay toppee sax foofu amul mm-hmm. balaa ñu naan yaa def wala defoo ci dossier Ngaaka se c'est loolu la tribunal wax dafa ne maanaam lii ñu tuddee faux billets du faux billets alors que tëj nañ ko ci kaso lu jege atu yàlla yoo xamante ne une longue détention provisoire avant ñu koy yóbbu di di ko di ko atte lëkk bu nga jël kaaw Mame Ngor Diazaka moom lan la wax. dafa nekkoon meeting. fan sam yi ñëw di comme boo nekkee ci kii rek di gars yi di battre di joxe ak yooyu noonu. ñu jox ko fa faux billet. waaye léegi artiste bi nga xam ne dafa taxaw di woy nit ñi ñëw di séddale billet ba joxaale ko faux kooku est mën nga ko jiñ ne kii c'est un trafiquant de ko ci kaso bi te pourtant bëri nañu tëdd ci kaso bi ñoo xamante ci bëri loolu lañ leen di jiñ wala nga nekk benn point wave wala orange money nit di boo demee di ko verser ji banque yow moom la ñuy jàpp dem na la ràpp ci kaso bi na la jàpp na la tëj lu yàgg pendant ce temps ana Bougazelli voilà dinaa ñëw ci kawam léegi man problème bi ma am ci wàllum phobie Sénégal mooy Sénégal phobie saisie yu important yi ngay dégg yëpp xam nga lan moo koy waral bu ñu ñëwee di la jàpp quantité milliards yi ngay dégg yëpp dama la li may njëkk leeral mooy milliards yoo fi dégg phobie c'est une fausse évaluation milliards bu ba ci cinq deux cent cinquante milliards yi ñu fi doon dégg yi ñu fi doon saisir xaw ma Kër Massar xaw ma yooyu nu mel yi ñu ngi leen di par kenn kenn c'est une fausse évaluation boo xamante ne enquêteurs yi dañ koy def ci toutes les procédures yi nga xam ne wàllum faux billet la mais naka ngeen mën a comprendre ma jël kayitu kayitu bi euh, sëñ Mbaye yor ma kuppati ko ba mu jël forme dix mille xam nga feuille blanche la mhm. imprimé guñ ci image wu dix paate loolu fan nga ko yóbbu di ko jaay bañ jël ko. <laughs> yëf yi dof ah, te pourtant dañ koy compter comme dix mille. compter dix mille teg dix mille dix ba mu mët nangami milliards. noonu lañ koy compter kayit blanche bu ñu kuppati ba mu jël forme dix mille guñ ci image amagul dara. ñu considérer comme vrai billet compter ko pour nangami milliards. non c'est mais lii maanaam intention boobu nga amoon daal dañuy jàpp intention bi nga am. non faux billet carrément lañu lay jiiñ trafic de faux mais loolu kan moo yóbbu di ko jaay. intention bi sax voilà nag. xam nga mais mais on dit que euh, kii nii. Euh, l'intention vaut est-ce que. mais loolu xam nga xam nga xam nga dafa am ci ay cas. yoo xamante ni lii day prospérer mais xam nga matière bi ñu nekk muy droit pénal loi bi dafa ne. le droit pénal est d'interprétation stricte maanaam loi bi lu mu waxul mënoo ko ko wax loo. amul matière de drogue. bu dee drogue. Mhm. détention bi loi bi da koy tere. Mhm. jëfandikoo bi maanaam nga yor drogue sa poche même ko jëfandikoo sax mhm. yor drogue bi rek délit la. d'accord waxuma laa nag jëfandikoo bi contrairement ak phobie bu phobie boo demee ci loi bi ci wax dafa ni tentative de mise en circulation maanaam nga koy jéem dugal ci circulation bi di ko jéem jaay di ko dugal jéem dugal ci économie bi la loi bi di tere waaw léegi këyit yi nga xam ne dañ ko ci kuppati ba mu jël forme dix sax imprimé guñ ci sax euh, li nga xam ne mooy image yu kii est-ce que loolu mën nañ ko considérer comme billet ba di ko comptabiliser di ci jàpp ay nit loolu man c'est une interrogation boo xamante xam nga ñu am bëri ñu ñu bëri ñoo xam ne jàpp nañu mhm. jàpp di la jiiñ faux billet suñu alkaate yi xarañu ci enquête ci wàllum faux billet parce que moom nee na ma oh. billet noir kenn mënu koo ba mu doon xaalis vrai mhm. loolu moom képp koo xamante ne spécialiste nga ci wàll gi xam nga ko ci wàllum monétaire ak finance xam ko billet noir kenn mënu koo raxas kenn mënu koo raver laxas ba mu doon vrai billet mais loolu il faut nga nekk un spécialiste pour mën ko xam mhm. de toute façon ñoom ñu ko wax ñoom ay spécialistes la ñu wax ñoo nekk nañu kii ñoom li ñu expliqué képp ku ñi ñuy jàpp billet noir yëpp mooy ñi nga xamante ne ay novice la ñu ay bële lañ ci secteur bi miinuñu xamuñu affaire yi ñu leen doon jéem a nax ñu leen doon jéem a nax ñooñu lañ ciy jàpp mais bu ñu xamoon dëggantaan nu muy demee un vrai professionnel de trafic de faux billets kenn du ko mës a jàpp mhm. képp kuñ ci jàpp rek novice nga boo xam ne escrocs yi dañ la nax ne la ñëw dañ la bëgg lavel temps de ñu temps ak yooyu noonu boo leen joxoon temps boobu noonu billet noir la constante mooy billet noir kenn mënu koo laver ba mu doon vrai billet. donc détenteur billet noir boobu buñ ko tegee loxo ci faux billet c'est normal. waaw xam nga mën nga ko interpeller mën nañ ko interpeller dans le cadre d'une enquête pour xool ñan la ko séqal ak yeneen ak yeneen ak yeneen mais le fait que. billet noir kenn mënu ko raxas ba mu doon xaalis vrai loolu rek sa soo ko mënta raxas ko mënoo ko ko dugal circulation donc loolu war na tax ñu ñu ñu mais mais bu dul woon loolu xam nga am na ci yenn boutique yenn kii yoo xam boo fa demee da gis ñu affiché fa kii uh-huh. billet uh-huh. am na ci yenn pochette yoo xam ne sax faux billet lañ ko defaree mais kon xanaa ñoo ñëpp dañ leen war a jàpp tëj leen ci kaso bi et kenn du leen interpellé gis nga dossier bañ ko fi jàppee en 2015 j'étais le seul journaliste bu toog ci plateau ni Thione Seck mérite une liberté provisoire boobu mi ngi ci kaso bi. lu ne ma dégg ko ci xanaa Thione Seck daf la fay xaalis. Mhm. xanaa yaay avocat wam. Mhm. lu ne ma dégg ko mais li que s'est-il passé ensuite. ba pare nga noonu. que il passé par la suite. Mhm. c'est-à-dire que droit juriste yi ma ci waxtaanal dañ ma ne bu dee wàllum drogue yor bi rek délit la. waxuma laa nag nga koy tox mais bu dee billet li yoon di tere mooy nga koy jéem a jaay di ko jéem a dugal ci économie di ko jéem a dugal ci biir circulation mais attends la fekkee ak la machine qui fabrique euh, la la monnaie billet bi par exemple waaw c'est comme comme le cas de Alaay bi ñu jàppandoo woon ak ak ak waaje xam nga lu jëm ci wàllum trafic de wàllum faux billet daf ci am foo xam ni délit la am foo xam ni crime la hmm. bu dee yow da ko doon jéem a defar am ay machine bu ko doon jéem foofu day nekk crime foofu moom minimum bi ñu lay daan dix ans la te da ngay tëdd lu yàgg ñu ñu soog la àtte te bu ñu lay àtte chambre criminelle lañ lay yóbbu àtte la foofu voilà donc sur le cas de de Thione Seck si yàlla si dañoo wax ne biir këram dañ fa fekkoon machine loolu c'était avéré wala déedéet keneen ki ñu ko jàppandool lañ fekk ci këram faux billet mooy alaay jitee benn appartement bu nekk fii front de terre foofu lañ fekk faux bi léegi nag au rëdd euh, boo xoolee yooyu yëpp mhm. dossier bu ngeen yeewoo dégg Bougazelli non <laughs> lan moo tax nga wax loolu waxoon naa ko ci dossier Awa Koudou Ndiaye xam nga neewoon naa leen ça ne rapport épinglé na rek que coupable de détournement mhm. parce que rapport bi duñ ko jël rek yóbbu ko basé ci pour tëj dañ koy rapport c'est-à-dire présomption de détournement la dañ koy yóbbu tribunal tribunal mooy àtte xool ndax effectivement am na détournement wala déet te sénégalais dañu def confusion boobu pour ñoom ku rapport épinglé rek tu coupable non non non. ne veut pas dire que rapport d'audit épinglé na rek que tu es coupable de détournement de deniers publics. Mm-hmm. parce que amul benn rapport bu justice mësu sukkandiku ba tëj nit. saa yu rapport génnee muy co euh, muy OFNAC muy IGE muy euh, cour des comptes muy ARMP rapport bi dañ koy jox procureur. procureur jox ko juge d'instruction juge d'instruction tijji information judiciaire xool ndax li ci am am na waaw wala am na ci ñoo xam ne dañ leen di setal mm-hmm. am na ñoo xam ne dañ leen di déclarer coupable mm-hmm. par exemple ku mel ni Modibo Diop eh, déclaré nañ ko fi coupable détournement deniers publics ku mel ni voilà les inspecteurs du trésor ak yeneen ak yeneen de détournement il faut que mu ñëw justice def enquête ñu ba ci biir ñu xool ndax tu es coupable ou loolu beneen précaution la maintenant deuxième précaution bi li tax ma ne leen Bougazelli bu ngeen yeewoo dégg ci noolee bu mu leen bert tous les spécialistes en ko c'est impossible ñu laver ko ba mu doon vrai billet. muy benn la deuxième chose mboolem procédure yi nga fiy dégg yëpp impliquant des célébrités ci wàllum faux billet ñoo ñëpp saa yu ñëwee tribunal tribunal da leen di day setal dossier bi. dossier ngaa ko ba leen di exemple la ci. Euh, artiste bi taxaw fii di woy ci biir woy gars yi di ko jox xaalis muy jël biy jël ba jëlaale faux xam nga kooku mënoo ko jiñ ne trafiquant la. Mm-hmm. billet boo xamante dañ ko këppati ba mu jël forme billet te yi dañ koy boole ci code alcoolose du vrai vrai bien quand même. ça revient à li nga tàmbalee sànq Pape moom mooy. alors sunu sunu enquêteurs yi war nañ leen di former ci yenn ci ay kii. matière waaw yenn ci ay matière c'est-à-dire euh, ñun daan nañ dégg sax am na ay jamono je sais pas est-ce que mu ngi am ba léegi yenn ci ay enquêteurs wala ñoo xamee ne en tout cas ay ay borom galon lañ dañ leen daan yóbbu ci yenn ci ay dëkk en Europe di leen jàngal waaju ci wàllum euh, cybercriminalité naka la ñuy defee enquête fii ak yu demee noonu est-ce que yooyu noonu ba tey nekkut loo xamee ne que l'État du Sénégal au lieu de maanaam euh, Euh, euh, maanaam di figé wu ci yenn ci ay futurité yu nga xam ne moom mooy maanaam di euh, xool naka lañuy ñuy dégloo Pape Ndiaye wala naka la ñuy dégloo keek yu demee noonu ay écoute téléphone ak yu demee noonu je pense qu'il y a plus sérieux que ça moom mooy mhm. seen formation yi mhm. parce que yi nga fi jotee wax ni yëpp bu fekkee nag maanaam et puis man je dis sax non dafa xaw ruslu dafa xaw ruslu un professionnel d'un ti bu toll ci niveau yenn yi nga def li ngay def ba pare andi sa enquête def sa rapport yow teg. Mhm. ñu ñëw faxas lépp. ne la ñu désavoué la. non vraiment c'est c'est c'est dafa bëri gis nga boo doon laaj discuter ak avocat yi wala ngay fréquenter nga xam lii fay ñëw ci PV yi ñuy annulé ni mu toll nga war a xam ne enquêteurs yi sérieusement war nañu xoolaat seen seen seen seen seen enquête te gis nga prison bi ñi fa fees ci wàllu pauvre yi xam nga ñan la. benn jaaykat bu toog di teg plaatu boolu gerte plaatu gerte caafam di jaay nit ñëw jox la faux billet yow yow xam nga du ñëpp qualifié pour mën a apprécier faux billet. yow yaa ngi xaar 5000 francs pendant 2 jours ñu ñëw jox la ko tey jii euh, sëñ bi da ngay. am na ci ay taximan yoo xamante ne yi fees ci kaso bi loolu la leen fa feesal da dugg client jox la faux parce que du ñëpp mën a seetlu faux am man man mënu ma xàmmee vrai billet ak faux billet ma ko joxee mënu ma ci xam dara. Hmm. parce que du sama spécialiste. je suis pas un expert. que Bougazelli mën nañu xëy un bon jour seetal ko man foofu moom dëgg yàlla. très bonne question waaw xam nga. c'est-à-dire que lu jëm ci wàllum phobie. Ah, mooy su lu jëm ci wàllum phobie. Mhm. c'est que la justice sénégalaise n'est pas assez outillée les enquêteurs ne sont pas outillés. Mhm. pour mën a détecter ay preuves wane ni kii il coupable de faux billets. yi seen bopp dañuy am sérieux problème pour déclarer nit coupable. président pour le cas Bougazelli da nga xam nature scellé bi. luñ fekk luñ nature scellé bi da ko fa da ko xam liñ liñ fekk ci moom. Mm-hmm. liñ mooy billet noir yi. waaw waaw loolu moom mi mi ngi ci kii bi mi ci enquête bi mi ci procédure bi. ay billet noir la yoo xamante ni moom moom moom déjà joxe woon na version. nee waaw. lu mu bëggoon Euh, maanaam mën na mën na bon une précision. cest dama ne cest à loolu éventualité la mën na bañ nekk loolu nag. Mhm. éventualité la bu fekkente ne noonu lii am na ci bu mu berte kenn na xel yi dem ci dossier Ngaaka Blindé dossier Sénégal c'est une mais ça ne veut que effectivement lii mooy am et que bi loolu lay décider mhm. juge bi moom il souverain mën na yóbbu dossier bi procès ñu àtte ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen dafa ne dafa am benn koo mu dem saisir ay biens fekk foofu sac rek pour moom xam naa ay matériel ay ordinateur ay yeneen ak yeneen mu dem saisir saisir loolu noonu pour waaj a fay ko xaalisam ndekete loolu mu saisir ay billets noirs a ci dekk loolu mooy version moom maintenant nag enquête bi nag dina déterminer est-ce que li mu wax ak réalité bi voilà lan moo ci lan moo ci lan moo ciy am quoi Pape li ma bëggoon a xam xam nga euh, ci wàllu faux billets mhm. parfois damay dégg comme billets yi nga xamante ni ay billets noirs lañ nga xam ne euh, am nga leeral mu solo boo ci def nga xam ne mënee su ko raxas ba mu nekk ay vrai billets mais am billet yoo xamante ni dañ naan faux billet la mais xaalis bu baax lay doon. Mhm. maanaam dafay nekk foo ci par exemple numéro série bi. Mhm. comme numéro série bi génnagul yooyu ñu génn ko. jógewul BCEAO wu daal. waaw nga yor ci lu bari. Mhm. nga xam ne bu nekkee ci circulation bi soo dajee ku xam dina xam ne série bi waragut a génn. te pourtant mi génn. ñu ne kon loolu faux billet la. léegi ki nga xam ne dafa yor billet noir yi ak ki nga xam ne dafa yor xaalis boobu. nga xam ne soo ko doon jaay tey même suñ ko dugalee ci machine dinañ xam ne lii euh, xaalis bu baax la machine mënu ko détecté. Mm-hmm. mais pourtant suñ xooloon tey ci numéro sérieux yi dañuy xam ne lii faux billet la léegi léegi ñaar yooyu nan la ñuy def ba ba xàmmee ban moo ciy faux ak ku ko ci yor.

ngi koy wax Pam euh, Pathé sànq yaa ngi mhm. koy wax ne la justice n'est pas assez outillée mu doon lu doy wax pourquoi la justice n'est pas assez outillée alors que tey ji yaa ngi koy wax sànq ay innocent maanaam benn jaaykatu gerte benn boutiquier benn taximan nekk ci kaso bi alors que ay nit yu siiw wala benn benn bugazel nekk ci mbedd di doxantu. waa xam nga li tax ma li ma wax loolu daf ci am matière yoo xam ne parfois ñii def enquête préliminaire mooy enquêteurs yi parfois seen xarañte day def damay doon joxe benn exemple ci wàllum blanchiment d'argent xam nga blanchiment d'argent délit la. blanchiment d'argent mooy nga jël xaalis bu lewul nga bëgg koo lewal lu mel ni nga dem sàcc ay milliards yu bëri ñëw euh, tabax immeuble tabax ci immeuble après di ko louer xam nga xaalis bi foo nga ko jëlee lewul mais yaa ngi ko jéem a dugal ci circuit bu lew loolu mooy blanchiment d'argent booy jinne sërëm envoyé na ko fi xaalis gab euh, euh, wari jamonoy wari envoyé na ko fi wari ñu ne ko ñu reçu wari ñu gis ko ci bagage booy jinne ne ko blanchiment d'argent <laughs> oh, sërëm bu mbokkal ndey ak bàyyi envoyé ko xaalis ñu gis reçu wari bi ñu ne ko blanchiment d'argent mais jour boobu noonu bi procès bañ fa taxee maître Doudou Ndoye dafa leen jox benn leçon magistrale ci lan mooy faux foofu la defee remarque bi ne en réalité ñun Sénégal dañu am sérieux problème xamuñu lan mooy blanchiment de capitaux. Mm-hmm. mais après ju dañu dañ ko dañ ko setal ci wàllum boobu noonu. la même chose moo tax ci wàllum terrorisme da koy gis. Sénégal moom ku jug ñu jiñ la terroriste boo defoon tey benn publication boo xamante ne menacé benn autorité wala benn ambassade wala yooyu noonu ñu ne la terrorisme gis nga kaa euh, Sayer Kebe ak ñeneen ak ñeneen donc daf ci am matière yu bëri yoo xam ne offense au chef matière yu bëri yoo xam ne saa yu PV bi ñëwee tribunal PV bi dañ koy annulé dama bëggoon nga ñëwoon ñu un peu ci wàllum phobie yi xam nga yaa ngi wax ci aspect boo xamee ne que maanaam moom mooy moom mooy cëslaay lii qu'est-ce qui lan mooy phobie et ba léegi nii donc selon sunu sama entendement man comprendre guma enquêteurs yi fan la ñuy sukkandiku pour définir ne que ok kii phobie la yor wala boog maanaam dañ koy teg loxo parce que donc dafa doon jël phobie pour pour pour teg ko ci marché waaw mhm. mais dama bëggoon ñëw ci ci daan yi maanaam mhm. tey jii nii exemple donc ñi nga xamee nekk ñoom nga fi jot a tudd seen tur yëpp c'est-à-dire on a un problème pour ñu mën a xam en pen peine yenn wala boog euh, euh, peine bi ñu leen teg ñaata at la ñaata weer la wala bokk lan la ci loi loi euh, dogal ci wàll woowu. waa xam nga bu fekkente ne da nga dem ci code pénal ci article yi nga xamante ne ñooy wax ci wàllum phobie day def distinction entre wàllum phobie bi nga xamante ne délit la ak bi nga xamante ne crime la bu fekkente ne bi nga xamante ne crime la doolu euh, gën gaa néew mën nga ci jëlee fukki at jëm kaw. bu fekkente ne bi nga xamante ne délit la nag moom maximum bi moom mënul weesu juróomi at. Mhm. mooy li nga xamante ni moom la moom la. est-ce que yéen tamit sensibiliser askan wi tamit bu baax baax bu jëree ñuy def euh, média yi pour xamle leen Mhm. wut ay professionnels ñoo xam ne ñoom maîtriser nañu. dañ leen di kii euh, waaw pour ñu voilà. justement parce que gars sax am na ci ñoo xamante parfois booy waxtaan ak ñoom dañ leen am nañ ay méthode pour détecter phobie am na ñoo mhm. ñoom ay seen technique traditionnelle yoo xamante ne pa déggee foofu damay gis ne daanaka kon ñetti ñetti façon phobie euh, dégg naa ko ci biir waxtaan wi daanaka kon am na mooy xaalis bi nga xam ne mu ne sa raxasaguñ ko. Mhm. boobu suñ la ko jàppee dañ naan la la. faux la loolu lañ lay wax. bi nga xamante ni maanaam muroon naag billet bi normal normal mais ci qualité tey boo ko bësee nii wala yooyu comme ni ñu koy détecté wala nga dugal ko ci machine mu. signalé ko mu signalé ko faux la. boobu mhm. tamit faux billet la. Mhm. bi nga xamante ni xaalis vrai lay doon mais xëy na ci numéro série bi. ci la dul baaxee ci la dul baaxee boobu tamit phobie la wala xaalis vrai sax bu ñu jaxase ci biir ay phobie xam nga loolu tamit day am mën nga jàpp benn quantité mais ci biir mu am ay xaalis vrai voilà merci nga xam benn un million boo xam ne xëy na tey par exemple euh, euh, def nañ ci biir benn wala ñaar yoo xam ne duñ ko xam yooyu yëpp nga gis ne ay qualité phobie la léegi euh, ban moo ci danger bi wala ban moo ci yëpp wala ban moo koñ sax yëpp danger koy wàllu phobie moom ma ne la ñu ëpp ci sur dix personnes yu nekk prison boo jëlee huit yëpp ci kaay mooy koo xam ne da nga toogoon fenn di jaay ñu jox la phobie wala transporteur bu ñu jox phobie yow xamoo ci dara nga dem fenn di ko jaay ñu ne la xam nga ce n'est pas yenn point ay point transfert d'argent yi wala banque ñu ne la boo xasee teg sa tànk ci bunt bi rek bu amatuloo droit dugg foofu di réclamer ko ak mais je me rappelle benn problème boo xamee ne aw kon en boo xamee ne que à rejoindre dire kii c'est un jeune garçon boo moom ci benn discothèque la doon liggéey je le connais en très bien peut-être sax après euh, dina suivre partie bii nii mu mu ànd ak ay xaritam ba wàcc dem nelaw ba yeewu xaritam bi mu àndaloon kooku noonu juge jugee fi ñu fi ñu fanaanoon dem envoyé ko xaalis ci par par transfert mu dem récupérer xaalis boobu ci téléphone am toog trois jours quatre jours ñu woo ko ci benn commissariat bu nekk ci banlieue bi. Hmm. paraît-il xaritam boobu li mu ko envoyé ci xaalis cest à point bi mu demoon pour envoyer xaalis bu mu fa yóbbuwoon xaalis xaalis bu bu bu baaxul la c'est-à-dire la te ñu ngi jógee ci discothèque bi dafa demoon liggéey xam nga yooyu le plus souvent ay ay boy lañ ñoo xamee ne ay serveur lañ genre da ngay pare exemple jël benn paate mbeng mu yëkkati benn vingt mille trente mille francs jox la xam nga xamoo sax ndax xaalis bu baax la bu baaxul toute façon may na la xaalis alors nga jël ko nga envoyé ko sa sa sa sa mbokk moom ñu woo ko tey ko ci pendant pendant quinze jours mm-hmm. ci lu mu recevoir xaalis boobu noonu pour xaalis waaw mu recevoir mu te ki ko ko envoyé paraît-il ko kooku la wax nag xaalis xaalis bi mu joxoon euh, point boobu noonu donc euh, euh, <laughs> maanaam xaalis bu baaxul te booy bi xamul woon sax ne xaalis bi baax na wala baaxul bi mu koy envoyé mbokkam moom parce mm-hmm. ba pare la xam nga non moo tax daf ci bëri ay victimes collatérales mm-hmm. en réalité ñi ci bëri ay victimes collatérales moo tax ma ne la ñi ëpp kas ñi ñu nekk ci kaso bi ñi bi ay victimes collatérales maanaam du ñoo xamante ay trafiquants de phobie la ñoo koy defar mais ay commerçant jënd ak jaay ñuy yëngatu ci milieu commerce la yoo xamante ne dañ leen ko dañ leen ko jox nii rek après ñoom ñu ñu ko te malheureusement buñ ko fekkee ak yow ñoom duñu chercher à comprendre mm-hmm. foo ko jëlee yu ni mel dafa mel ni drogue rek drogue bu ñu la ko fekkee moo tax ñuy tere boo demee ci aéroport mm-hmm. wala ci yenn train yi wala bus yi wala véhicule ñu lay dénk bagage mm-hmm. gars yi bu ñu seetee alkaati ñoo dañ laan teel ma lii ma dem tañ boo boo région dem ñëw bu ko kenn ku la ni teel ma bagage bañal ku la ni da dem Sénégal mu yóbbante la bagage tijj ko mu sa kanam nga xam li ci ne parce que bu ñu mhm. jox dara lu yóbbul ko la teg yi mhm. sur vingt taximaan yu nekk ci prison bi dix-huit yëpp xam nga lu leen fa yóbbu mhm. da nga client mu yoraale ay drogue ci saagam wala ci benn kiiwam ak yooyu seen contrôle daw bàyyi ko fa ba ci ah. transporteurs yi transporteurs yi dem ci région yi di ñëw mhm. ñu ci bëri ci ñoom loolu tax ñu tëj leen kaso porteur buñ ñëwee bu douanier wala alkaati yi ñëwee fekk ci lii bi drogue buñ ne ku ko moom gars yi kenn waxul chauffeur bi la ñuy jàpp dem tëj ko moo tax am na ci chauffeur yoo xam ne balaa nga leen a lonkul dañuy ñëw rek jiñ ko benn client dañuy xool kuñ ci gën a yeb ci mbooloo mi xool ku mel ni yembar bu mel ni Pape Ndiaye rek ne ko diw kii moo ko moom <laughs> ñu jàpp kooku loolu yow la dafa dafa métti loolu ci wàllu ci wàllu yoon ci wàllu yoon est loolu gaawul trop pour nit ki dem dugg kaso c'est ni ko loi bi est-ce que gaawul trop loi dafa ni yow mi ñu ko fekkee la ñuy jàpp du ñu chercher à comprendre fu mu jógee yow mi ñu fekkee te du am benn enquête pour ñu enquête ba xool lii fan la jógee wala dara ndax xam nga kii nga xam ne chauffeur la day day liggéey mhm. moom day liggéey chauffeur la yëpp ay nit ak seeni bagage mooy liggéeyam mhm. ñu fekk loolu ci ci ci otom ndax gaaw trop mu jël chauffeur bi rek dem yóbbu waaw amul benn enquête bu ñu ci war a def wala dara xam nga loolu bu ñëwee ci passager foofu ma xam nga kenn du réclamé waaw ñëppay aju ñëppay loolu moom c'est évident. ñëpp léegi comme car bi mënuñu jàpp yëpp ñëw bu ñëpp. waaw dañ naan chauffeur bi yow yaay borom oto bi. léegi ka ko moom moom dem. dafa mel mucc moom chauffeur bi ñu jàpp sa bureau fekk ko fa rek. xam nga da daloon yaa ngi fàttaliku dossier ni ko lay mhm. mooy affaire Lamantin Bersi bi xam nga loolu la woon waa ji fekk cinquante grammes cocaïne ci bureau mais yow mi ngi ko fekk sa bureau yaay lonk de ah mhm. léegi nit bu la bëggee taxal wala na fi gis nga militant ko defoon mhm. jógee ñooro dugal drogue suufu otoom boo xamante ne pour pour donc dafa dafa doy waar loi moom kenn mënu ci drogue bi li ci gën a doy waar mooy bu ñu lay àtte tribunal drogue bi du ñëwaale parfois affaire phobie parfois bu ñu lay. mais ko ci maanaam ñu ne quantité bi soo ko ci yoree. Mhm. lii daan boo ci yoree quantité bi lii mooy say waaw foofu nag la am différence parce que bu dee drogue. Mhm. loi bi dafa ne bu matee kilo. waaw crime la. Mhm. boobu da ngay dem chambre criminelle. waaw dix ans mooy minimum bi. Mhm. drogue bu mëtee kilo ak drogue bu mënti doom moo xam yamba la héroïne wala cocaïne. Mhm. te bu dee yamba bi tam bëri na ay xeet yan ak yan la paase. <laughs> paase gis nga ni ma dugalee woon mais paase bëgg naa yóbbu moo nekk procureur. yow xam na ko non xam na ko dina ko lim dina ko lim. Ah, ay yàlla yàlla suturaal ji waay. barke Serigne Ba. yëkkati sa karaw bu bi ma defoon ba dugal ko TikTok. waaw waaw mais mais mën na bañ a nekk jaar jaar mais. dootul dootul xam nga wax rek. yaakaar boo demoon kaso par exemple mu ne eh, man ab gëwël la xamul xamul loolu. gëwël xamul lu wax wax dëgg ak lekk yàlla. bëggoon naa bëggoon naa laajte laajte dara quand même parce que dañuy wax ne très souvent su fekkente dañu jël benn saisie cocaïne Euh, li ci li ciy topp moom mooy incinération dañ koy lakk. Mhm. mais su fekkente ne dañoo jël euh, euh, billet de mhm. koy def dañ koy yóbbu banque wala. dañ voilà yaa ngi laaj laaj boo xamante ne nag Pape moom la doon laaj mardi bi passé balance. <laughs> maanaam di ngeen dégg ñu ne dañuy lakk drogue bi ñu jàpp. di dégg nangam di dégg nangam mais mosul ñu mosoo leen dégg ñu ne <laughs> dañuy lakk tey faux <laughs> donc léegi faux boobu fu muy dugg loolu jaaxal na. loolu dama jaaxal jaaxal na ñëpp ah. fan na question bu mujj benn client ñëw jox ma faux billet mu dem ba ñibbi may door a xam ne lii faux billet la léegi ma jël faux billet boobu denc ko sama tiroir wala ma jël taf ko ci boutique bi est-ce que tey benn contrôleur wala euh, policier bu ñu fa ñëwee dañ ma ciy teg ay daan wala non xam nga boo ko tafee mhm. boo ko tafee déjà ça veut dire que loolu jéemoo ko dugal ci biir circulation am na ñoo xam ne dañ koy baare dee loo am na ñoo xam ne dañ koy baare am na ñoo xamante ne mën nañ la sax toog di la xaar surtout yi ñi nga xam milieu euh, guddi yeeg yooyu noonu mhm. ñu ci bëri ñu ci bëri yoo xamante ne ñoom yooyu yu mel noonu da leen di dal mhm. mais respecté. dañ dañ lay jéem a repérer xàmmee la moo tax moo tax loi bi exiger milieu yooyu képp ku fay ñëw da nga fay bàyyi li nga xamante moom mooy ba ci muy hôtel muy auberge loi bi dafa def obligation ñi nga xam ne ñoom ñoo koy gérer. Mm-hmm. bépp client bu fa dugg da nga fay bàyyi sa pièce d'identité ñu relever la. parce que chaque après lendemain dañ koy yóbbu police centrale bu ñu ko deful police mën na leen ci teg daal. moo tax képp ku dugg mës a dugg auberge wala hôtel. Mm-hmm. sa fichier ngi police. très bien <laughs> moo leen def obligation <laughs> <laughs> dëgg la mi ngi noonu mu yaa ngi ree de euh, waxtaan bu am solo Pam Ndiaye ñu daal di jaajëfal dëgg yàlla Pathé lu muy ree du nag l'importance di gën a sensibiliser askan wi yëpp ñaar yëpp